asalaamaaleykum samay mbokk asalaamaaleykum sama réew Sénégal man la Arya sama askan sama réew maa ngi dellu si di leen delloo njukkal di leen wax ni gàcce ngaalaama waaye tamit di leen wax ni massa parce que ginnaaw barki démb bi nga xamante ne rey nañu ñaari nit benn ci Dakar ak benn ci Saint-Louis démb ci guddi Macky Sall Maïssé Sélé Ndiaye ak mussa Fall rayati nañu ñetti xale yu ndaw ay waxambaane ca Casamance. mu doon nag loo xamante ne suñu réew. parce que deux mille vingt et un juumul <coughs> du moins deux ba ñuy dindi Macky Sall Ablaye Wade ci bopp réew mi kenn xamutoon ni. ndeke ñun ñëpp ñaaw téef gu toll nii lañu def ba ñuy fal Macky dama ne 2012 ba ñuy dindi Ablaye Wade di fal Macky ndeke ñun ñëpp réew mi xamatoon ni ñaaw téef bu toll nii lañu nekk di def suñu réew man mii bokkoon naa ci man keroog ba ñuy bi ma yëgee ni Ablaye Wade dafay dem deuxième tour dama daw douze kilomètres ci samay ak samay tànk ndax kontaan. kon booba yëguma woon ni ab ñaaw teef laay andi pour teg ci sama boppu réew sama askan tey fii la ñu toll ak suñu réew nit ki foo wax ni Macky Sall bon na rek weesu na frontière booba surtout si ñetti at yii yu mujj yi depuis deux mille vingt et deux mille vingt deux ba deux mille vingt ba deux mille vingt quatre Macky Sall wonul Sénégal leda dara lu dul ab mbon mbon mbon gu jéggi dayoo ay fen yu dul jeex. ay kàcc yu dul jeex a président boo xamante ne ci ay kàcc lay dund di rey ay nit ci loolu la Macky Sall dund moo tax it li may ñëw pour wax leen ndeysaan ñu bëri ci yéen doo leen kontaan ci li ma leen di wax waaye dara taxul ma leen koy wax li tax ma leen koy wax mooy pour ñu mun a am ay bët yu xaw a leer yu xaw a ay bët yu leer pour ñun ñëpp ñu bokk xam fan lañu jëm waaye tamit pour ñu ñëpp ñu xam ban taxawaay lañu ñu war a taxaw pour ñu mun a gagné combat bi nga xamante ne gagné nañ ko ba pare loolu rek moo tax ma bëgg leen a wax dëgg bi te dëgg la boo xamante ne daf leen di gaañ waaye daf leen di defar pour ngeen mën a xam lan moo war a doon seen taxawaay. ndagam démb bi ma gisee Macky Sall wax ci télé bi ma gisaat waa Casamance wax démb ma ne ah musiba mu ngi waaj a ñëw xaaral ma jéem a wax ak samay mbokk. xaral ma jéem a wax ak sama askan senegaal dëgg la Macky Sall mu ngi ñuy rey Casamance mu ngi rey doomu Casamance yu bare bare bare waaye mu ngi rey doomu sénégalais waaye sama askan bu ñu def li nga xamante ne moom la Macky Sall bëgg buñ ko def bu ñu def loolu dam leen ko saraxu dam leen ko ñaan bu ñu def li nga xamante ne moom la Macky Sall bëgg Macky Sall mu ngi bëggoon boole pëli ak olof yi ñu xeex mu réussirul Macky Sall dem tooñ Casamance rebel yi pour ñu xeex réussirul Macky Sall bëgg ñoo boole fii ci biir réew mi ñu jaxasoo ay ay waasoo réussirul Macky Sall taxaw di ñu rey pour ñu mun a jóg xeex réussirul Macky Sall provoqué Ousmane Sonko pour mu xeex ak moom réussirul ci dernièrement yi bu Macky Sall ñëwee rey Casamance ba yéen tey ngeen laam-laame di wax ni nañu ut ay armes pour fayu ci policiers yi ak militaires yi mais bu boobaa yéen a ngi def li nga xamante ne moom la Macky Sall doon ut bu boobaa échec bi nga xamante ne Macky Sall échoué na ko pour réew mi mën a xeex moom mu mun a am li mu bëgg mais ci lañu dañuy dox ci léegi ci loola nga xamante ne moom la bëggoon Macky Sall dafay réussir buñ ko defee bu kenn ut ay arm pour xeex ak Macky nañu yor suñuy xeer ak suñuy cocktail Molotov loolu mooy suñu passivité suñu xeex pacifique ak moom bis bu ñu wutee ay arme rek may nañu Macky Sall bunt bu mu taxawee pour arroger nit ñi parce que armée bi moo ñu ëppale ay arme dina taxaw léegi mu tiire si nit ñi qualifié leen de terroriste qualifié ñu de islamiste de assassin ñu ñu profité ci loolu moom ak tubaab yi pour ñu mun ñoo rey pour wax ni terrorisme bi mu leen waxoon ni dina ñëw moo nekk nii kon bu ñu may Macky loolu. xeex bi jeex na xeex bi fi ñu toll nii ni mu gën a méttee mooy wone ni xeex bi jeex na parce que lépp loo ñoddi boo koy waaj a jàpp dafay gën a metti te ci loolu lañu toll sama askan ci loolu foofu lay jaaree dugg wax leen lu tax xeex bi jeex na. xam nga démb dégg ngeen Macky Sall wax Macky nee nañu nañu ñëw négocier ak moom démb. barki démb démb mu waxaat ko boo leen ñëwul négocier ak man nguur gi dinaa ko jox ab militaire ah ma ne cam li ma waxoon a ngi nii de li ma waxoon mu ngi nii Macky Sall nee na ñëw leen négocier ak man boo leen ak man réew mi dinaa ko jox ak solda te lan la ko askan gi wax ak constitution bi ñoom dañ ko ne toppal yoon bi nga xamante ne moom lañ fi tegoon pour kenn ku nekk bu waxtu jotee mu mun a nekk président. comme yow ak Ablaye Wade na ngeen nekkee woon président defal loolu réew mi mën a am jàmm jaaral ci constitution bi ñu dem 25 février ay élection ñëpp am jàmm ñu fal suñu président Macky Sall nee na déedéet da ngeen di nangu man li ma bëgg man Macky Sall ngeen ñëw ñu waxtaan ngeen jox ma un an ma toogaat ci bopp réew mi bu ko defee bu boobaa du ma jox réew mi ab militaire bëggu leen loolu ma jël réew mi jox ko ab militaire boo xamante ne France moo ma jox militaire boobu may ma jël militaire boobu teg ci bopp réew mi ba pare mu gën a jaxasoo man ma dem sama yoon loolu la ñu Macky Sall wax de. lii nag lu tax ma koy wax c'est pour ñun ñëpp ñu bokk xam-xam ñun ñëpp ñu tolloo xam-xam bi ñun ñëpp dañoo war a tolloo niveau gis nga ñun ñëpp bu ñu tolloo xam-xam bi ñi xam ñi ñu wax ñu xamul. ñi xamul tamit ñu jóge fa daal di xam Macky Sall mënaluñu dara bu ñu tolloo xam-xam Macky Sall mënaluñu mënaluñu dara lu tax loolu parce que ñun dañ leen a yàgg topp ñoom Macky Sall ak ñoom Macron te ñun dañoo maase ak ñoom jàng ak ñoom xam li nga xamante ne ñoom moom la ñu xam ba noppi ñun ñu baax ñoom ñu bon loolu mooy différence bi. lu Macky Sall xam ñun xam nañ ko lu Macron xam ñun xam nañ ko lu joobay Biden xam ñun xam nañ ko suñu différence entre ñun ñooñu ñun ak ñooñu mooy ñoom dañoo bon ñun ñu baax loolu rek mooy différence bi waaye amul lu ñu xam te ñun xamuñu ko mënul nekk moo taxit waxoon naa leen ne dina am ñetti coup d'état ñetti coup d'état mooy am premier coup d'état bi dugg nañ ko ba pare moom la Macky Sall def. jékki-jékki daal di wax ni du ma organiser ay élection damay tas assemblée nationale conseil constitutionnel ak assemblée nationale ñoo jubóowul ay kàcc rek ay fen kese moo tax mu tas loolu. léegi nag damay toog un an su ma toogee un an ma ma ma defaraat affaire conseil constitutionnel ak opposition bi ak assemblée nationale ñu juboo ñu xool ñan ñooy ñara dem élection ñu organiser ay élection kooku ñëw toog ay kàcc la xam ngeen nu muy def. bu fi toogaatee balaa un mu andi tribunal bu dul jeex ci Ousmane Sonko pour mu mun ko kondam ne comme terroriste mu kondam condamné Bassirou Diomaye fay comme terroriste mu daal di andi ñu ko neex daal di fal France ne ko ñun diw ak diw ak diw la ñu bëgg mu fal ñooñu daal di wax ni loi bi moo wax loolu constitution bi moo wax loolu député yi ñoo ko wote assemblée nationale mu dem yoonam mosul respecté woom bu ko kenn déglu dafay kàcc dafay fen léegi nag loolu moo waral mu ne. France ne ko comme askanu Sénégal yeewu nañu xam nañu da ngay leen da ngay dem wax ak ñoom ne leen yow bëgg nga organiser ay élection mais ñoom bu ñu nangul négociation ku France waxu ko ni wax leen ni coup d'état loolu erreur la ci Macky Sall wax leen ni di nga def coup d'état boobu mooy deuxième coup d'état bi mu leen waxoon ni dina ñëw mooy Maysa Sele Ndiaye ak Moussa Fall ak seen i njoñ seen i ñoñ ñoom ñooy def coup bi nga xamante ne France moo leen ko digal pour ñu def ko loolu la leen Macky Sall nekk di leen expliquer démb ni dina am deuxième coup d'état mooy coup bi mu leen waxoon ñetti coup d'état ñoo war a am deuxième coup bi Macky wax na ko démb ni dina am. mooy soo leen d'accordul négociation man dinaa jox réew mi ay militaire benn chef de l'état ci àdduna mosul nangu ñu def ko coup d'état buñ ko naree def coup d'état c'est parce que moom ak France ñoo déggoo pour ñoom may Maysa Sele Ndiaye ak Moussa ak seen i ñooñ ñu ñëw def coup d'état lii mooy dëgg bi après nag dinañu dugg ci troisième coup d'état bi après dinañu dugg ci kura troisième coup d'état bi ala kulli ali dinañu dugg ci troisième coup d'état après dina leen jox solution bi fan la ñuy jaar ba troisième coup d'état bi mooy lan mooy bu boobaa bu Maysa Sele Ndiaye ak Moussa Fall defee coup bi ba noppi askanu Sénégal dina gën a xaftalu dina gën a jóg dina gën a taxaw pour xeex te bu boobaa dina am yeneen patriote yuy jóg ñëw def coup bu boobaa léegi vrai coup bi dina ñëw bii mooy scénario à la Burkina Faso bi Hannibal jëlee nguur gi ba ba population bi toog ba si yàgg ñu doog a comprendre ni amibal mii toog fii du du du askanu Sénégal la fi toogal waaye France ñoo ko fi teg benen waay dafa jóg ñëw def coup d'état bi mooy Ibrahima Traoré ñu ngi jaar ci système boobu foofu la ñuy waaj a jaar parce que système France bi nga xamante ne euh, Gabon bi nga xamante ne moom la ñu bëggoon a defaral ci Macky dañoo gis ni Amadou Ba dinañ ko gagné foofu du mun a am pour ñu mun a ñu sàcc. léegi système boobu bàyyi nañ ko mais ñetti coup yi mu leen waxoon yooyu mënta fomm yooyu ñoom ñu ngi seen logique ba léegi def nañu premier coup d'état deuxième moom la Macky Sall annoncé démb ñoom Moussa Fall ñoo war a jël nguur gi waaye ñoom dinañu amaat beneen coup d'état parce que ce problème ñoom Moussa Fall mooy ñoom du am sens sens bi ñàkk seen ñàkk am sens mooy lan seen ñàkk am sens mooy lan mooy Macky Sall bi mu nekkee ci bopp réew mi benn nit moo ko doon xeex benn groupe moo ko doon xeex lu tax groupe bi doon ko xeex parce que groupe bi dafa xam ni Macky Sall dañ ko nommé euh, démocratiquement il faut ñu may ko ba mu jeexal mandaawam mooy peuple bi armée bi dañoo xam ne Macky dañ ko nommé démocratiquement il faut ñu muñ ba affaire bi loolu mooy may Macky Sall mu am benn askan rek ñoo ko doon xeex mais ñoom Moussa Fall amuñu sens boobu ñoom Moussa Fall ak ñoom Maysa Sele Ndiaye ñoom amuñu sens boobu parce que askanu Sénégal dafa nar a comprendre ni ñoom coup d'état bi France moo leen ko yabal ba pare ñoom Moussa Fall ak ñoom Maysa Sele Ndiaye coup d'état bi buñ ko defee ba pare li tax ñoom amuñu sens mooy mooy askanu Sénégal yëpp xamoon nañu bien avant ni ñoom dinañu def coup d'état li ñàkk seen sens mooy lan mooy seeni moromu militaire patriote ñoom tamit xamoon nañu ni ñii dinañ dinañu def coup d'état ñaari ennemi Macky Sall benn ennemi la amoon mooy peuple Sénégal mais Moussa Fall ak Maïssa Sele Ndiaye ñoom ñaari ennemi la ñuy am mooy peuple bi ak armée bi nga xamante ne d'accord ñu ci coup d'état bi kon daanu Moussa Moussa Moussa Moussa Fall ak Maïssa Sele Ndiaye dafay gën a gaaw bu Macky Sall nii li arrivé woon Hannibal ca Burkina Faso ñetti weer la def mu daanu Maïssa Sele Ndiaye ak Moussa Fall du ñu yàgg ci bopp réew mi te Burkina Faso sax ñoom xamuñu woon ni Amibal li fi mi fi toog nii France la fi toogal mais Sénégal dañoo xam bi bien avant ni ñii di waaj a def coup d'état bi France moo leen yónni moom ak ak Amérique ak ñi nga xamante ne ñoom mooy Macky Sall kon ñooñu duñu am temps boo xamante ne dinañ fi gudd fan ci boppu réew mi parce que taxaw bi ñuy amoon pour xeex contre Macky taxawaay bu raw loolu la askanu Sénégal di am pour xeex ak Moussa Fall ak ki nga xamante ne mooy Maïssa Sélé Ndiaye pont bi nga xamante ni réew Afrique yi waaj a baax yépp ci pont boobu la ñuy jaar ala kulli aali ñun mënuñoo jàll beneen yoon bu dul ci pom boobu dafa mel ni fépp ndox la mu am benn pont boo xamante ne moom la ñu defar ñu ne pont bi si la ñëpp di jaar pour mën a jéggi mën a am lu leen lu leen lu leen doy waaye pont bi ci fin bi pont bi dafa xaw a yàqu boo leen fa eggee nag ku nekk na nga teg say buum teg say planche nga mën a jàll ci pont bi waaye départ bi ab tàllal la. pon boobu ci la Burkina Faso jaar pont boobu ci la Mali jaar pont boobu ci la Niger jaar ci ala kulli aali ñun ci pont boobu la jaar amul feneen fu ñu mën a jaar loolu xam dëgg boobu dafay tax ñun ñu am suñuy taxawaay xam dëgg boobu dafay dafay tax ñun ñu gën a déterminé xam dëgg boobu dafay tax ñun ñu xam ne dina metti waayi ñun ñooy gañe nu Sénégal mooy gañe parce que Macky Sall dafay dem man mii di wax ak yéen dinaa dem waaye réew Sénégal moom dafa war a continuer di dund parce que dina am ñuy juddu ñëw ngalawaay ñooñu nañu taxaw pour ñooñu waay ngalawaay nañu taxaw pour ñooñu ngalawaay li ma liggéey liggéeyaloon bàyyil ma ko fi naa ko liggéey bàyyil ko fi sama doom waay ci ñun ñëpp moo taxit loolu moo taxit bu kenn nangu chantage Macky Sall bii. nee leen Sénégal yéen ñëpp nee leen ko Macky Sall defal li ngay def askanu Sénégal def li mu war a def bu kenn nangu chantage Macky Sall gis nga bis boo leen nangoo chantage Macky Sall xam nga lan mooy am mooy dafa mel ni jigéen bu jénnoon guddi wala bëccëg dem tëdd ak beneen góor wala góor gu jénn dem tëdd ak beneen jigéen te am na jabar ñu bett ko gis nga kooku buñ ko bettee ki la bett noonu ne la léegi du ko wax sa jëkkër wala du ko wax sa jabar waaye danga may jox dix mille franc gis nga bo def def ba jox ko dix mille franc yooyu dina ko lekk ëllëg mu soxla cent mille franc dina ñëw laajaat la cent mille franc te problème bi mooy bis bu nekk dina la laaj xaalis problème bi mooy yow soo tëddee saa yoo tëddee guddi doo am nelaw gu rafet parce que saay su nekk yaa ngi ragal ni kañ lay wax sama sutura bi kañ lay wax sama secret bi xam ngeen solution bi mooy lan mooy kooku bu ko jox benn cinq mille francs benn dix mille francs bàyyi ko mu dem wax sa jabar wala sa jëkkër li mu bëgg a wax bis boobu dina metti torop waaye ginnaaw bis boobu yow di nga am sa jàmm parce que si la sa jabar di la xas ba nga ne cocc wala sa jëkkër xas la ba nga ne cocc waaye bu paree ci la lay baal wala ñu xas la ba nga ne cocc wala ñu xas la ba nga ne cocc waaye bu ñu paree ci bis boobu si la sëy bi di tas waaye xam ngeen lan mooy ci intérêt bi intérêt bi mooy ginnaaw la cay xew yow dootoo amati problème bu mel noonu problème boobu réglé. lii la ñu Macky Sall andil tey nee nañu nañu d'accord moom ñu chantage ba de un an un ci lay xool ndax dinañu delloo nguur gi wala moom mu jël nguur gi jox ko militaire yi suñu d'accord fii ba un dana continuer di ñu chantage andilaat ñu beneen bu ko kenn nangu Macky Sall na def lu ko neex ñun ñu taxaw xeex pour mun a am suñu jàmm sama gaay réew mii ñu toll nii Afrique yëpp dañoo jóg taxaw te xale yi jóg nañu taxaw te ñun dañoo am sens gis li nga xamante ne mooy xew ci yeneen réew ñu préparé ko xam ko ba noppi ñu doog a dugg ci problème bi loolu moo facilité moo yombal suñu xeex bi waaye gënoon waroon naa gën a métti fii ñu toll. kon fii ba ëllëg wala ba gannaaw suba ñun ñooy gagné combat bi jàpp leen ci loxo yi ñu jàppante nekk benn nekk benn réew bu ñu nekk benn xeet si suñu bi ñu réew di manifester pacifiquement pour jëlee fi ñii nga xamante ne ay nit ñu ñuul lañu waaye tubaab yi dañ leen a ngemb pour ñoom ñu toroxal seen askan jël alal gi jox ko ñi nga xamante ne mooy tubaab ci ginnaaw loolu ngeen am sens am ay doom yu baax ci ñooñu nga xamante ne dañoo bon am yeneen doom yu baax yoo xamante ne ñooñu dañoo taxaw pour delloo alal bi ñoom seen i papa ak seen i doom ak seen i sët ëllëg ñooñu ñooy ñun kon nañu jàppante ngir ñu gali xeex bi parce que xeex bi xam nañ ne ñun ñoo koy gañe Macky Sall du ci am ndam mukk parce que ginnaaw erreur bi nga xamante ne jël nañu ab mala ab nit ku bon ab saytaane ab iblis ab firaw na teg ci suñu bopp réew ba noppi mu ñu andil lu mel ni sama askan sama réew ginnaaw bi may wax ak sama xel tukki na sama yaram daw na waaye gëm naa ni combat bi dama koy gagné te dañ koy gagné kon ñu ñëpp nañu manko ma ne leen ci réew mii ñuy naan Angleterre. ciao ba beneen yoon man la Arya Ba Site